association des aviculteurs de Touba di kuréel goo xam ne dañuy yëngu ci wàllum yarum ginaar ñoom ñoo ñëwoon tey ji ci altine ji dëppook le 28 juin 2021 doon ziare si Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides bi ñu agsee fii ci résidence Xaadim Rasoul àndandoo nañ ñoom ñëpp doon benn jébal ko li nga xam ne mooy seen àddiya ci koppar ak yeneen jumtukaay yoo xam ne indaale nañ ko moo xam ay téere ak yeneen ba ci ay ginaar yoo xam ne bokk na ci àddiya ji ñu jébalaale ko sëriñ bi sëriñ Abdoulou leeral na sëriñ bi lépp loo xam ne jëm na ci liggéeyub adat di association des aviculteurs de Touba. ñu jébbal ko Mbàkke ngir gën a gën a dégg seen bopp ñu ngi nekk ci diggante Touba ak Mbàkke sëñ Abdou Lo lii lii nag di di di. xaaral tuuti wax nga bisimilah bi te am mbégte lool ci jàkkaarloo gi ñu jàkkaarloo ak yow ñuy njabootu Serigne Touba te fi nekkal Serigne Touba ñu fas yéene nag sa ci njiitul soxna moom bi ñu àndal ak mboolem njaboot gi. ñu dajaloo woon nag fii ci Touba ak li ko wër ñu ne daal fasatuñu yéene mukk ñuy jéggaani fenn lenn loo xam ne am na ci biti te waruñ koo mën a liggéey fii muy wàllu jëfandikoo ci wàllu ginaar suñu àdd yi ci ginaar yi mu nga suñu àdd yi mu ngi noonu waaye ñu di la amal ne Mbàkke fasatuñu yéene mukk la commencé ci fi nga xam ne ginaar gi dina fi tàmbalee nene ba fi nga xam ne fi la ñu koy defee lépp fasatuñ ko yéene ñu dem machine yi nga xam ne moo ci war ak lépp projet boobu teg nañ làmboo ñun nag dañoo jóg jëm ci tool yi ñëw ñu ci jiw woowu jof ci ne ñu ñu ngi dem Mbàkke barkeel rek lañ ci bëgg moo tax ñu teew fii teew euh, kaamil boobu nag ñoo la ko jox di la ko ziyaare ngir sëñ Touba euh, téere boobu di nooru daara yi nii fekk nañ la ci boroxaan ma dégg ci sa kàllaama nga wax ni euh, sëñ Saaliw moo la ko doon jàngaloo ma fasante woon ko yow wëllëre jox la ko bi ñuy ñëw fii si ànd ak sëñ Cheikh Naalu ak soxna Musli ñuy defal ci kër gi kër googee bi ñu ñëwee joxaat la ko fi addiye ñaan moom moom yeggale nii di la ko ñaan mbooloo mii ñu àndal jox na maam Asta moom sëñ Sidé ñëpp ñu ngi ci mbooloo mi ñu di la xamal ne nag daal liñ bëgg mooy lépp barkeel ba lépp lu ñu jëggaane am fii lépp ñu ko def fii ci Touba loolu lañ lay ñaan Mbàkke te boo sëriñ Mountakha Mbacké moom santaan na leen bu baax a baax gërëm leen ak kuréel gi nga xam ne moom lañ taxawal waaye rafetlu yitte gi ak passeef gi dégg na kàddu yu baax nee na na xam ne seen jataay bii sedd na xolam guy am na ci mbégte kàddu yi nga yëkkati dafa wax ne dégg na kàddu yu baax a baax euh, te dégg na ko dégg na xol te na ngeen xam ne jataay bi sedd na xolam guy rawatina yitte ji nga xam ne ak liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy def fas yéene ci ànd ak yéen mu ne mu ngi leen di ñaanal rek ngatanuk sëriñ bi ak wommatuk sëriñ bi loolu rek la leen di ñaanal mu ne mu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm ci seen taxawaay ak seen yitte ak seen PCF ndax xam ne fu ngeen mën a ne sëriñ bi ngeen fa nekkal moom it fii mu ne yéen la fi nekkal kon mu ngi leen di bàyyi xel saa su ne di leen wéttalikoo di leen ñaanal yéen ñëpp suñu borom dimbaluñ ba dajeeg tawfeex sëñ Tuubaa seen lépp gën di yomb seen lépp gën di yëwén seen lépp gën di barkeel na ñëpp tàllal seen loxo bismillah adat na ñëpp tàllal seen loxo te wax amin te lu waay bëgg na fa si gi amiin amiin ginnaaw bi leen sëriñ bi ñaanalee ñu santaat bu baax a baax gërëm Cheikh Mamadou Mountakha Mbacke moom sëriñ Bassirou ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati na ko ñoom it am na yeneen kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko mu jëm ci ziar bi ak naa li nga xam ne am nañ ko ci dëkk bu sell bi di Touba ak taxawaay boo xam ne fas yéene nañ koo am ci mbooleem événement yoo xam ne. dana am ci dëkk bi. di am mbégte ci ziar bu ñu dox si woon tey fii ci kër euh, sëriñ bi muy suñu yaakaar te ëllëg Cheikhul Khadim sëriñ Mouhamadou Mountakha euh, jàpp naa ne euh, tey ji xol yëpp tey sedd na ndax ni ñu ko bëggee woon noonu la ko amee ñu ànd ci ak mbooloo mi nga xam ne tey mooy waa CIADAT. Seydaat euh, nag bu bu ñu ko déggee mooy ñi nga xam ne fas na yéene taxawu tuubaa ak mboolem di ko wër ngir fexe ba lépp loo xam ne doon nañ ko jéggaani ci wàll woo xam ne dafa yitteel Touba muy solo su am maanaa muy wàllu euh, euh, yar ginaar ak yaxantu ba ak lépp lu ciy war a dem loolu moo taxoon tey suñu daj fii ñu dem doon ziare sëriñ bi. ku ne xam na ni taxawaay yooyu li mu laaj bari na trop waaye ñii ngeen gis tey ñu àndandoo taxaw. seen pësteef ak seen taxawaay ak seen man man tax na ba ñu taxawal loo xam ne am nañ yaakaar bu wér li liñ ci bëgg mën nañ ko am ndax projet boo xam ne jàpp nañ ni ay milliards lay doon euh, ñu dem ba am ci lu dal suñu xel euh, rafet ci njort trop ba am ci jéego yoo xam ne seqi nañ ko ba suñ xel dal ci ba ñu ñëw ci sëriñ bi indil ko projet boobu li ñuy def mooy bi ñu taxawee bi ñu waxee ak moom mu ne ñu euh, dana ko ànd ak ñun te suñ xel dana ci gën a dal lañ gën a xam ne kon li ñu bëggoon am nañ ko ndax kon euh, ndax boo dee xool daanaka mën naa ne 55 pour cent yëpp mënoon nañ ne atteindre nañ ko waaye kon bi sëñ bi waxee gëm nañ ni maanaam pour doon 100 pour cent 200 pour cent yooyu dinañu mën a dem fi nga xam ne foofu lañ bëgg kon nag li wér te mooy euh, ci njiitul soxna moomi lay ak ñi nga xam ne ne ñoom la ñu àndal ci bureau bi ku ne gis na taxawaay yi nga xam ne moom lañ taxaw parce lii nag dafay loo am solo xam ni liggéey ñàkk jariñu moom la sëñ Touba doon jàngale benn tey jii ñi nga fi gis ni bari na fi ñoo xam ne ñu nekk ci euh, euh, yoo xam ne ñoo nekk ci moom loolu mooy wane ne sët yi nga xamante ne bi ñoom seen jëm bopp liggéey moo leen war taalibe it liggéey moo leen war ñu àndandoo joxante loxo mu nekk benn ñu fas yéene lépp lu ñu lu ñuy mu doon seen gën di encouragé te comme sëñ bi dina baax ñun fas nañ leen koo yëkkati dootu laal suuf mukk incha allah kon nag mbokk yi ñu ngi leen di ñaan suñu borom taxawuñu te sàmmuñu te jàppale ñu te xam nañ ne loolu dinañ ko am ndax sëriñ bi joxe na baatam ñaanal nañu te xam nañ ne mi ngi ci suñ gannaaw mi ngi ci suñ kanam wasalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu sant yàlla yonent bi ak sëñ Tuubaa ñu ngi sant Cheikh Mamadou taxaa yàlla na fi yàgg lool te ah, di sant suñu jëwriñ ji na nga xam ne mooy sëñ Cheikh Abdou ndax li waroon lépp def na ko te it sax kàddu gi sax xëy na mbooloo mi moo tax rek ñuy wax waaye lépp moom wax na ko yàlla na ko fi yàlla bàyyi nag mu yàgg ñu jiite te lépp loo xam ne moom la wax te ñu sàkk ko bëgg ko ci biir projet bi yàlla nañu sëñ bi defal lu kawe njorte ndax sëriñ bi moom dafa wax wax joo xam ne dafa jiitu te taalibe yëpp war nañu nànd loolu war nañ ko jàpp defal ma loo mën ma defal la loo mënul nga defal ma loo mënul ma defal la loo jom ñun lii ñuy def nii ko te ñu ngi ñaan Serigne Touba mu defal ñu si luñ jox. asalaamaaleykum. mbokki GIE Adat ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm sutura xéewal wér gu matale ñun nag suñuy kàddu du ci bëri ndax ñooy bàyyi faalu GIE bi bu sëñ Cheikh Abdou waxee sëñ Mourtala Jaw wax rek day doy sëkk li ñuy rafetlu liggéey bi rek la ñuy def daal amuñu lenn loo xamante ni bii yokk nañ ko ci mbaañu ñu wàññi ko ci ak dalal xelu ñëpp di wane ni suñu xel dal na bu baax ndax ku dégg sëriñ bi wax tey jii rek sa xel war naa dal kon ñu ngi ñaan ñëpp ñu jàppaat te góorgóorlu lii ñu sëriñ bi wax ñu joxante loxo dox jëm ci taxam xam ni lépp dina baax barke sëriñ Tuubaa Cheikh Ibra Fall jërë ngeen jëf. maa ngi nuyu mbooloom yëpp kenn ku ne ci turam ak santam di sant Cheikh mun taxaa di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi lool te may ñu wér. di wax ne di sant suñu Cheikh Abdoulou mi ci taxawaay bi rafet na macha allah di ñaan nag sunu borom ba suñu GIE bi adaat. Euh, suñu borom defal ñu ci lu kawe suñu joor teyit suñu xel dal na bi ñu gisee sëñ Muntaxa rek suñu xel dal na xam nañ ni fañ bëgg a egg ci yarum ginaar fii ci Touba euh, te dootuñ jéggaani fenn lenn Eh, dinañ ko am ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom nag mu dimbali ñu suturaal ni ba ñu fiy ñëwaat déwén di indaale ay millions yu dul jeex di indaale ay junni junni ginaar ba lépp lu ñuy def ci Touba rek ñun ñu participer ci contribuer jox ñu joxe ci suñu contribution maa ngi sant nag mbooloo mi yëpp nag bàyyiwuma kenn. ADAT di association des aviculteurs de Touba di kuréel goo xam ne dafa ëmb ay yarkatu ginaar fas yéene doon benn liggéey liggéey bu am solo te fas yéene kenn du leen mën ci liggéeyub Serigne Touba bi